هدى إلهي زحزحا ما ساءني مزحزحا وبرجالي نزحا نسا أزال ظلمي أني مزعزها وبرجالي نزها نزا عزال ظلمي القلب من امتلأ علما وخبل اختلأ وقد صرفت قرها مغني الضلال مغني يسب للحلال وليس ينقل اعتلال ولا دواعي ولمي هدية الباقي المخيم تقود لي أنفاق وسرت فرحة الوقود بعملي وكلمي ilayya qaada zul wara mumallikan li suwara wa li fuaadi nawwara mubarra'an min alami lam yanquni daa'ul jasad wala qilam wala xasad fiihi mabiici maa kasad fi bay'i aw fi sulami لدي بسما بغرب مع أمن بمنتهى سلمي صلى وسلم بلا نهاية من قبلا همي على من أسفلا سيدي وأعلى قلمي كسلي fii de ànd ko xalifa général rek di dundal guddi gi comme ni mu ñu ko digale waaw comme moo jox moom moo joxe ndigal ñu koy ñu koy ñu dundal fii ci fii ci dëkk dëkk bu sel bi mu ànd ko ak ñun ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax mu yàgg fi lool lool te ñu ngi koy dundal daal gën kaa rafetu dundin wax dëgg yàlla xanaa comme comme li ñu xamee Touba rek muy jàng arxuraan jàng xasida bernde comme noonu rek noonu rek lañ koy dundalee waaw soo seene ànd ak sëriñ bi rek suñu kem kàttan toog durus boole koog di jàng xasida rek ba fajar ñu dem dallu ji incha allah rabbi dund na comme ñëpp ni ñu koy dundee rek comme ñëpp ni koy dundee rek bàyyi fépp ñëw Touba ndax ñun ay murid lañ amuñ leen luñ sëñ bëgg Mouhamed moo ko jaral lool lu nekk ñu tam mooñ jaral lool def li ñu mën ngir moom. Ah, gis nga nekk murid rek. <laughs> waaw ba mu leer incha bu neexee yàlla incha allah waaw sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi di sant sëriñ Touba Xaadim Rasul wax dëgg yàlla bis bi fu ñu ko takk rek weesu na ko ndax euh, bisu Serigne Touba la bisu Xaadim Rasul la. xatma gi macha allah neex na ñoo ngi ñaan sëñ bi mu yàgg fi te wér. waaw moo ko jàngatee noonu moom. ah xat na torop xat na torop murid moom xam nga dafa xër saa ñu xëyee rek moom suñu sañoon di gën a jege waaw. waaw yaay booy ñu gàmm ak jàmm. waaw ñu waajal ko ñëw mu neex rek. neex na lool bari na mbooloo lool yal nañ ci yàlla defal tawféex ak ngëneel ak aajo ju faju defal na ci gudd fan ak ku wér sunu xol sedd na buy ci bisu yonent bi. lool jërëjëf. jërëjëf gàmm gi moom ni ñu gisee mu taw fii xam trop di ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwéni déwén si barke si yàlla Xaadim. yow yaa ngi doog man fii laa dëkk si dëkk bi laa dëkk. gàmm noo ko gisee. ah gàmm ren gi moom taw fii xam moom waaw. ñu ñaan yàlla sëñ bi yàgg bu baax a baax nga ñëpp di ñaan sëñ bi yàgg bu baax a baax. màggal guddi gi parce que guddi gi dafa ñoo toll boo xamante ne bii màggal yeneen bi moom loo ci def doyut dugg nañ def suñu ziar jàng alxuraan jàng xasida xam nga a wut bayal bu yaatu nag toog fa àggale ba suñu wér. waaw gàmm gi wax dëgg yàlla macha allah parce que porte bi tëj nañ ko mais tijji nañ porte bële ci ginnaaw fa lañ jaar dugg nañ ba ci biir waaw dugg nañ ba ci biir ziar nañ non man fi laa dëkk. man fi laa dëkk waaw waaw gàmm rek macha allah wax dëgg yàlla macha allah amiin amiin amiin